ca tabarkal sénégal euh, maa ngi leen di béggee bu baax a baax di leen siyaare di leen ñaanal jàmm te di saaku ci yéen comme niñ ko daan def rek saa su ne ma si isa jëy fatim penda ak may ñaay ngeen di jàkkaarlool docteur gay bamba tey nag ma toog ak ndaanaan ndaanaan boo xamante ni su ma dee ndaanaan yéen ñi may seetaan gëm ngeen ne ki ma toogal ndaanaan la eh, tey nag ma war a ak moom baat ak tontu ki nga xamante si modi di soriba soriba nuyu naa la sëñ xaadim maa ngi lay fay di la siyaar bu baax a baax di nuyu waa sénégal ñëpp E, di ñaan jàmm ci réew mi di nuyu sama papa bu baax di ko ñaanal yàlla yokk ay fanam di ñaanal suma yaay yàlla ko yàlla yërëm di nuyu sumay fans sumay soppe sumay staff suma soxna suma njaboot yëpp maa ngi leen di nuyu ak sumay xarit waaye. tey nag sori ma bëgg ñu def euh, émission bu relax bëggee def lu ñu neex quoi euh, tey nag dama bëgg. ñu dugg direct ci waxtaan bi euh, que ni Sori Ba gëjoon nañu ko gis ay jamono ñu jékki-jékki gisaat beneen soribaa bu bees mu mel que ni eh, li gars di def gàddaay moom la Soriba defoon làqatu liggéeyaat indiwaat beneen style boo xamante ni si bu gën a garaaw sax ñu daan gis ci eh, eh, Soriba donc loolu noonu naka la naka la ñëwee ci yow. waaw xam nga rek dañ ne lu juddoo ci tàgg moom bu naawul jaaxali mbokkam yàlla def musique dañ ci juddu doon na ko ci sunuy maam ko ak sunuy papa ba yegg si fi tey. et que làkkatu woon nañ liggéey di voyager di def ay tournées un peu partout donc ñu pare nag ñëwaat yaakaar naa ne li ñu indi gis nañ ni neex na Sénégalais yi neex na fans yi te ñu ngi ci liggéey ba ba léegi di góor góorlu rek di saako ñaan nag donc ci li nga indi noonu sax ci laay bëgg ñu waxtaan si parce que dama gis euh, Soriba nekk studio di liggéey donc mu indi ñu benn single bu ñuy wax la donc la ñu gis mu ñëw Sénégalais yi bëgg ko Ndéla cartonné xale yu jigéen ñi man sama téléphone

mi ngi jëlee ci affaire yu bëri quoi mais ci sama biir kër ci sama foyer wax dëgg yàlla ma ci doon fawantu nag soirée ba benn jour dollar sax dañuy <laughs> ma mi ngi daan wax ba morceau boo ko joué soirée dañuy dañuy tëb dañ ko bëgg am nga donc euh, ma enregistré ko studio wax dëgg yàlla mu jël ci benn 30 secondes mais bu ma ko dugalee sama snap parce que man sama snap lu ma def euh, sama snap lay njëkk mais ma ko dugalee ko xam nga sori baal na mun xam nga bi nice maam mu son na ca week yooyu noonu parti gumbe bi. non dafa garaaw xam nga gars ma ne la la si si. xale yi jigéen ñi koy snap dañ koo mën quoi. donc comme si que ni comme ni nga expliqué nag yàgg nañ ko dégg soirée ba miin morceau bi. waaw mi mi mi ngi noonu donc. kontaan nañ ci trop am ah, te it euh, voilà di wane ni rek ba léegi parce que ñu def rek ñu li lay waral xamal ne ñu dañ la doon topp bi nee la bi génne gis naa la yaa ngi làqatu ci ruq di tourner album bi eh, j'espère que mu def ab diir. Mm-hmm. donc fan la toll.

ñàkk suñu kilifa ki nga xam ne mooy moo tourné clip bi di Papis Niang borom art ménagement maa ngi koy nuyu au passage di ko mes condoléances mm-hmm. Mm-hmm. moom moo ñàkk magam te bu ñàkkee ñu ñoom ñàkk da mm-hmm. mënul nekk moo tax sax ñu bàyyi suñu activité yu bëri donc pour mun ko soutenir ci loolu parce que c'est un frère te ku baax la bu ñàkk magam bu góor ñu bokkoon ndey ak bàyyi yal na ko yàlla yërëm donc mënuñu woon génnee clip bi ci loolu boobu moo tax mu téye ko ba léegi doon xaar sarax si jeex incha allah xam naa semaine prochaine incha allah dañuy génne Papis euh, ñu koy jaalewaale grand frère moo génn àdduna di ko ñaanal yàlla suñu borom fu mu jëm dàqal ko euh, fi mu jógee donc àdduna ak loolu ñoo ànd mais nag euh, sori ci biir loolu aussi gis nañ la tamit yaa ngi ci album. waaw maa ngi ci album bu baax maa ngi ci album international. donc man li may poser question avant ngay sori sori lan la nar ci Sénégal quoi parce que dafa gis Sénégal actuellement ni mu demee sori dafa mel ni que dafa am benn affaire bu mu naral Sénégalais moom bu xiifee foofu mu lekk. narawul ma Sénégal àdduna laa naral. parce que li may def pour àdduna yëpp la. rawatina Sénégal parce que bëgguma lu dul sigil suma réew. parce ay ndaw lañ ay ndaw yoo xam ni ay matuñu te dañu juum. Hmm. wax dëgg yàlla tey hmm. tamit jaam moom sabab hmm. bëgg te di ko def muy musique ñaan yàlla mu jàppale ci bañ ci keneen ak keneen ak keneen ak keneen. am na li ci ëpp solo mooy mujj bu rafet. mooy

comme Ben Michael Jackson l'a gis euh, si comme Michael Jackson ne gis Sor euh, euh, je ne sais pas pas, bi ne xam donc xam sénégalais Sénégalais pas, je ne sen pas, Souriba, donc sais lan am Casamance pas, am fa popularité je parce que gis nañ ne aussi nga dugg ci école yi xam nga def ay visites extraordinaire donc Souri lan la am Casamance ak lan la fa def bay ba mu am fa public bi ñu lancé waa Ziguinchor ñëpp maa ngi leen di nuyu waa Bakaaw gars yëpp maa ngi leen Casamance dafa nekk dëkk boo xam ne suma dëkk la parce que man ko yaata laa sant te samay maam ñu ci bëri soxee ko foofu te yàlla def ñu am fa li nga xam ne bay dollar xam na ko muy l'interfamille ci tamit tuddee ko l'interfamille mu Moustapha Mbengue Goro suma xarit nga xam ne bëgg donc ñu tëggoon fa benn événement pour Sodiba ñëw fa bégal waa Ziguinchor mhm. waaye man ngi sax bi ma yeggee foofu tiit parce que dañu bi ñu yeggee caravane bi accueil bi mhm. ni ñuy génn mais ni accueillir président man sama dafa garaaw dafa man nga xam ne dara def ma fi leen tajuma fenn non man moo ma jaaxal waa ah ba ba Casamance mel nii ci moom. voilà mi ngi noonu muy affaire boo xam ne daf ma renforcer quoi. Mm-hmm. affaire boo xam ne daf ma gën a yokk jom. Mm-hmm. daf ma gën a soulager. Mm-hmm. affaire boo xam ne franchement waaye j'étais vraiment ému. yàlla ma yokk. nii donc accueillir ma parce war naa gën a mën a góorgóorlu xool fu may teg sama tànk. war naa gën a mën a nekk nit koo xam ne nit kuy.

parce que foofu la laaj ak division rythmique bi xam nga def nañu album donc def nañu ay son génnee ko ak ñoom ñi nga xam ni tamit yàlla may ne leen xam-xam ci wàllu musique mm. donc mu tiim Afrique xool xool xool tànn ci Soriba invité wu ma plateau invité wu ñu teg sama album di ko di ko fecc ci plateau bi. ba pare génne sama clip ci seen écran di commentaire. xam nga ñoom bi ñu waxee sama biographie sax man dama tiit. donc loolu bu ñu ko gisee bu ko gisee ak euh, Sénégal li mu yaatoo ñu jël ci benn Soriba donc di def lu mel noonu ci bi ko gisee lan la def automatiquement. waaw franchement dama kontaan wax dëgg yàlla. ku ci nekk boo sañoon tey ah.

nga toog gis ni ah man de fi ma toog sama maa ngi jàpp ni taalibe laa ci modeste sama jëmm ji du dara li may def defaguma dara mais li ngay def lu ndaw loolu xam nga di ci jéem di ko takkale waa nit ñi àdduna bi ñu koy suivre ba tey canal mu ngi ko jël di ci commentaire ci benn jëmm du ñàkk bi kon damay doon sant yàlla sant ak loolu wax naan loo doonul taalibeem lu nekk doo doon sëriñam ma gis aussi Sori Ba ak ay famem famille boo ko déggee mooy ay fansam ma gis sori ba am benn euh, solidarité bu muy dund ak ñoom donc damay gis ay anniversaire dama ciy gis sori ba dama ciy gis lu waay xewle ba da ciy teew ma gis ñu nekk di def ben affaire bo xamante dafa raar ci musicien ak ay fansam donc nga jege tellement que donc sa diggante ak ñoom est-ce que mën nga ma ci expliquer tuuti. wa bañ na ko man limay véhiculer chaque jour moy mooy Soriba amul fans man gëw ma ne am na fans ay xarit la am. ay doomu ndey moo tax bi ñu naan fans club Soriba dama ne les amis de Soriba mooy ñi nga xam ne su may xarit xarit lépp a ngi ci biir comme lan la yàlla dafa def moo toogee ma xalaat lan mooy fans c'est quoi réellement lan la ba ñi nga xam ne dañ la bëgg ñi nga xam ne amuñu sago ci yow ñi nga xam ne boo lekkee ñoom parce que pourquoi boo lekkee ñoom la boo génnee sax boobu ñu koy jënd xaalis boobu ngay dundalee ku nekk ci lay solo ci lay mën a avancer am soirée ñu dagg seen biir ñoom ko tegee ci yoon rek ñooñu lépp dafa da nga leen ko war a da nga ko waaw ñun ñooy buur ñu feewlee dafa war a nekk boobu leen la bëtu dama leen dama leen war a sagal dama leen war a tiitaroo yow tamit parce que dañ lay tiitaroo te àdduna bi ku lay ko waaw ma leen di sant di leen gërëm loolu moo waral ku ci xewle damay xam ko ci am anniversaire tamit boo mënul dem tamit wala ma xam ma defal na vidéo xam nga tey tax sama numéro téléphone la bu ma leen woo ñëpp. donc ma di leen nuyuwaale tamit euh, les amis de Soriba maa ngi leen di bëggee bu baax a baax mais ci biir loolu Sori euh, am na événement boo xamante ni si mu ngi sunu kanam nga di ko waajal euh, muy le 13 février donc événement bi est-ce que mën nga ñu ci ñëw tuuti ci biir événement boobu. waaw loolu nag événement la ci biir événement yi. su mu nee événement si biir événement yi loolu spécial lu spécial mooy tey ku ne xam na dollar events xam waa Elvision xam Soriba te dollar events ne Soriba rek eh, Elvision leneen la ñu wax te ñu tëgg benn événement bi nga xam ne dama naan soirée spéciale neex la loolu dafa leer soirée spéciale neex boobu ñu ngi koy defee Gabana club. Mhm. waaw ko sax pour parce que euh, temps yii tëgg nañ fi Sora euh, Saraba. Mhm. dëgg yàlla nit ñi amuñu sax fi mu moo tax tey ba ñu def entrée def entrée cinq mille VIP dix mille waaye prévente trois mille rek lañ trois mille VIP mm-hmm. prévente pour pour pour nga xam ne ñoom ñëwuñu ci Kepa Seck mën na ñëw ci biir ñoom événement bi dañ ci sargal nag suñu mag suñu xarit mm-hmm. muy Kepa Seck Kepa Seck Maria li mm-hmm. nga xam ne dafa yaatal aar bi suñu mag borom xolu or bi xam ne xolom dara nekk ci wax dëgg yàlla ñu àndandoo sargal ko teral ko wax ni nag ah, spectacle donc ñu ñu nar a gis lu doy waar ñu nar a gis euh, Dollar Events ak waa El Vision Média donc war a euh, jàkkaarloo ak Soriba euh, ñu nar a songu fans yi donc fans yi ñoo nar a am problème parce que ñetti kër yooyu noonu war a jàkkaarloo ñoom ci le 13 parce que le 13 dafa nekk date boo xamante ni tey moo nekk première sortie Soriba wax ci le 13 mais dafa mel ni que le 13 Soriba daf ci am leneen lu mu ci bëgg a wanewaale. dina saf saf ci àddina. Hmm. le 13. le treize si la Sénégal di xam vrai vrai vrai kan mooy suñu papa. lancement clim bi. waaw ci kàttanu yàlla. le treize dañ koy xam. te it ceeb fan yu ñëw. dinañ gis ñu ñëwee waat le treize. ñu gis àdduna di waat le treize. te ndax am na ay surprise. ndax bëgguñu wax lépp xamuñu ma wax. mais mën nga ñu ñemal surprise yi mën na nekk fay. nga may ci benn quoi xam nga clip clip ndeela mi ngi ñëw. le treize laa war a wane kora bi. le treize spectacle bi. le treize laa war a indiwaat son bu bees. ñamal leen aperçu ci album bi. te lan lañ wax album international. le treize mbokk yi yéen ko déggandoo tabarkaala ci El Média ak Soriba ndaanaan boo xamante ni sii du ma ne dafa xew ci Sénégal mais dama naan na ko àdduna xaar te xam ne mu ngi ci yoon tabarkaala yàlla bu ko yàlla na ko yàlla musal ci ndogaan ak pàkk comme ni ñu koy waxee mais nag euh, Sori actuellement musique sénégalaise. Euh, dama naan sax dafa tilim actuellement donc waxante bi yàqante bi donc dafa nekk loo xamante ni si kenn xamatul lan lay ndróol ak xam nga àdduna moom yàlla lépp lu mu bind ñaar la mais baax ak bon salté waaw set tilim ak set bokk laa ko mën a wax loolu fii nañ ko fekk ci lépp laa wax waaye nag xaw ma nag fi ngay waxee. <laughs> non fi may waxee sori xam nga ko quoi donc gis nga actuellement musique bi ni muy demee damay damay damay cité sax gis nga Wally ak Pape Diouf.